yéen a ngi ba tey si ñaareelu bàccu bloc d'information la matinale dans Sen TV et Zik FM mën ngeen ñoo seetaan à partir de nos plateformes digitales Sen TV Facebook l'officiel ak Sen TV YouTube l'officiel tey nag Mame Mbaye nga xamante ni de Guédiawaye El euh, nga xamante ni moo di ab benn tantam ñu di ko woowee Bigué Dia Bigué Dia moom moo génn àdduna ci euh, conseiller membre fondateur coordinateur euh, du mouvement Guédiawaye laa bokk donc euh, ñi ngi koy jàlle la nga xamante ni euh, moom la ñu bokk El Hadj Ahmed Aidara di la massaw di ñaanit kooke di suñu yaay bii Guédia yàlla xareel ko àjjana te sara xam yàgg loolu loolu si seen loxo Mame Ndiaye yaas est-ce que war naa laa nuyuwaat c'est que tey moom yaas xam nga def gars yi dañ ko desee sentir te yeex dafa desee dafa desee jël euh, euh, drogue matinale bi <laughs> est-ce que doo leen jël biraaj <laughs> c'est que lii lañ lii lañ jëlul tey teyoo tey mais jox ko rek garaawul biraaj joxel garaawul amul benn problème gis nga. si si drogue matinale bi lañ lañ lañ jëlagul si suba ba tey. naanul café am ci suuf. naanul doosam naanul doosam aw sekk mere nañ la torop. Hmm. mais comme ni ko waxee ah, ñuy jaale monsieur le maire Guédiawaye El Hadj Ahmed Aïdara euh, xam naa waa Sen TV l'officiel tey euh, euh, di ngeen am lu leen lu leen lu leen xaw a metti ndax monsieur le maire bu Guédiawaye ñëwul tey tey mu mel ni dëj bi mu amee ñu ko si jaal di ko ñaanal yàlla may ko xolu muñ ndax kooku ñoom ñoom ñoo bokk mouvement hmm. donc dëkkandoo la dëkkandoo bu yàgg rek bokk la hmm. rawatina ñu bokk mouvement kon nag monsieur le maire bu Guédiawaye ñu ngi lay mastaw di la jaale di nuyu wala nuyuwaat ñi ñu bokkal plateau bi ah. nuyu nuyu Siré monsieur le préfet. waaw Siré nuyu préfet. <laughs> takkal ndomb tànk préfet. waaw waaw waaw préfet nag tour bu bu yàgg la. Mm. ndax ki ñu ma tuddee euh, moom bañ ma koy tuddee sous préfet la woon. sous la waaye àcc mujj naa doon préfet ba mujj doon gouverneur. kon tur bi jig na moom mooy sama turandoo Mamadou Sall. Euh, mm-hmm. Papa maa ngi lay jaar di la nuyu. Euh, moom mujj na nekk. Euh, biñ ma koy tuddee sous préfet Malem Odar la woon. Malem Odar ñu tuddee ma ko mu doon préfet nekkoon na Bambey nekkoon na Diourbel nekkoon na préfet Kédougou. nekkoon na sax préfet Dakar après mi ngi mu ñoomee ko gouverneur Kaolack après gouverneur Dakar fa la jëlee retraité euh, mais préfet ñi ko xam dëgg. Hmm. mooy waa Tivaouane ndaxte une j'ai fait une bonne partie de mes humanités. à Tivaouane jaaree aussi ngay mexe sama dëkku yaay euh, mais tamit Mboro tundu. kajoor googu. ñoom ñoom moom ku ma wax préféré dëgg. ah, ah c'est parce que xam na la. waaw waaw c'est parce que euh, xam na ma. jaajëf maa ngi maa ngi nuyu ñëpp waa Tivaouane <laughs> waa waa Ngaye Mekhe ak waa waa Mboro ah. maa ngi nuyu ñëpp. kon nag euh, Siré mu ngi leen di nuyu ñooñu mu lim ñooñu ñëpp dédicace bi jàll naa. ah Birahim Touré Birahim Diadji Touré. Uh-huh. Euh, borom dégg naa nag lundi itam mu daaw ñu. nandi waaw waaw waaw c'est xam nga dañoo nekk ci suñu waajtaayu màggal daaru mu màggal daaru bi yow it may waa daaru yëpp ah, rawatina nag sikóor yi nga xamee ni fa laa may sama mbir ak euh, maam Cerno Birahim borom daaru bu Seydina Ousmane ñu koy ziar bu baax Mbàkke seen mbir voilà ñu jaajëfal nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu topp ci seen TV l'officiel Mahmat Mahmat Ndiaye nee na man damay clando laata may ñëw fajar gi moom nee na faw ma clando ba pare doog a dem jërëjëf ah, Mahmat clando diggante fan euh, euh, euh, tëngeen mbaaw mbaaw laay clando ba pare doog a ñibbisi <laughs> jërëjëf Mahmat dégg naa la ndongal Dia jaxeer géen bi Aminata Dia Tina Dimen ñoom ñëpp bari nañu lool di ñu topp ci seen TV l'officiel di nuyu waa Zik FM 89 point 7 nga xam ne yéen ñuy topp jamono ji ci oto yi ci tànganaa yi sama mbokki lébu yi nga xam ne ñoo nekk ci géej gi it euh, temps yi euh, géej gi sonal na leen lool ndax bëri na ay nappkat yu nga xam ne ñu ngay réer ci géej gi di si ñàkk seen bakke nañ si bàyyi xel di tàkk gilet de sauvetage yi mm, et puis euh, dafa mel am na benn mooy ñetti ne ñetti ñi nga xam ne ñoo tëmboon seen papa jeex ay doomam dégg naa troisième corps bi démb lañu ko mujjee gis ba denc nañu ko sëgi cimetière bu Yoff sur Mer je pense mm-hmm. ñu leen koy jaale sama mbokk nappkat yi xam nga bëgguma dara lu leen dal donc mooy fegu leen bu baax jag ba wër gis nañ liggéey bu rafet bu mu def démb. Ah, euh, sa université Cheikh Anta Diop jag ba woon donc euh, Yaas. Euh, Mame Mbaye nuyul Alima. <laughs> Alma maa ngi lay nuyu bu baax. très bien ayca mën na commencer tribune yéen i kaay ak mën a génne gaamu ak mën a dangu nit mu ayca yéen i kaay groupe des médias la ñu koy tàmbalee ah tey dafa ñëw ci li nga xam ne mooy ndëpp national bi nga xam ne dañu ko def ci wàllum yoon suñu justice bi dañoo gis ne justice bi jamono ji comme yaramuk màggat foo ci laal day metti wala cin wu taw a tàkk boor bu nekk lañu koy uppee moo tax euh, ñoom si boppam ñi nga xam ne ñooy magistrat yi woote ak ndëpp niki démba ngir waxtaanee ko li ñu si gis nag moo di suñu wàllum yoon fii ci Sénégal dafa desee am indépendance mi ngoog dafa desee am indépendance si jamono jooju nga xam ne ministre de la justice moom dafa xam ne dafa gis ne ñetti pouvoir yëpp exécutif judiciaire législatif bu si nekk am nag barrière bu leen xajaatle kon nag ku si nekk mën nga demal sa bopp indépendance boobu am na fi moom jëwriñ bi ñu denk wàllum yoon noonu la gisee waaye nag ki nga xam ne moom mooy Alioune Tine moom neneen la gisee ndax dafa gis ne jamono ji suñu wàllum yoon ni muy doxee teey na xel lool te nag bi Sénégal nekkee Sénégal ba léegi euh, pour guléet ñuy jàmbate nii si wàllum yoon kon nag di guléet moom Alioune Tine dafa gis ne doxalin justice bi euh, dafa euh, sooxe magistrat yi ci boppam ña nga xam ne ñoo woote woon ndëpp gi nag ñoom lu ñu gis moo di fu mu nekk ay jooy kese moo leen dese ay jooy moo leen dese ndax indépendance bi nga xam ne moom la ñu bëgg ci wàllum justice ba léegi nañu fexe ba am ko euh, Souleymane Teliko moom mooy jiit la nee na la justice perd la confiance des justiciables te nag lu ko waral du lenn lu dul waaye politique yi nga xam ne seen ak doxalin yenn saay moom mooy euh, ñëw yoot ba euh, teree def euh, ñi nga xam ne mooy justice bi ab liggéeyam kon nag waaye politique yenn saa wala sax doxalin gi moo xam ñi bu ñuy wax waaye politique nguur gi rawatina ñu nekk ci pouvoir bi yenn saa yi nañ leen di traité daal ak nañuy traité benn membre bu nga xam ne moo am ay jafe-jafe ci wàllum yoon day metti ndax ñi nga xam ne sa ay ay ginaar la ñu sàcc yenn saa ñoom la ñuy fàtte si kaso ba te leen a àtte Euh, mooy longue détention préventive yi nga xam ne daal yàgg nañu ko fi jàmbat nga gis nag ku nga xam ne nii euh, dafa joaatle poosu askan wi ak poosam bu bu fa duggee du fa yàgg wala amaana sax du fa dugg loolu la li nga xam ne ñoom ñooy wàllum yoon loolu la jot euh, ñëw ci yenn kaay groupe des médias ñëw na ci Abbas Fall Birahim Souley Biram Souley Diop ñi nga xam ne ñoo nekk euh, PASTEF kenn ki coordonnateur PASTEF Dakar administrateur bi ñoom nag jàppale ne ni kii euh, démb ba lañ leen bàyyi may leen euh, bàyyi nëgës ndiku loolu la yéene kaay groupe des médias xëy fësal ñu ñëw ci li nga xam ne ba tey ci wàllum yoon ak Sud Quotidien concertation de l'UMS mooy ndëpp bi nga xam ne kuréel gi ëmb magistrat yu Sénégal siré moom la ñu doon amal ni ki dem ndëpp mu mag amal nañ seen ndëpp dañoo gis ne justice bi daal jamono ji moom la ñuy yóbbu ci yoon ngir nag àtte ko te biñ ko àttee bu noppi dañoo gis ne tëddee ñaaxandaay moo fi amul justice bu nga xam ne nii indépendance am na ko moom la ñu gisul ci boppam Souleymane Teliko moom moom nga moo nga xam ne moom moo jiite li nga xam ne moom mooy magistrat yi nee na sans indépendance mënees nañu wax ne euh, euh, justice bi dana perdre li nga xam ne moom mooy crédibilité am ak autorité am justice bu nga xam ne nii nit ñi dañuy dem ba amuñu confiance ci moom dañuy dem ba nga xam ne la moo ciy mujj euh, anarchie da naan jarul yóbbu yoon vu que su ma demee ci yoon it du ma fa am ndam donc naa fajal sama bopp te loolu na foofu la ñuy bañ a yegg te lii raam ci ñàkk bala jëm bu fa duggee du fa génne mu ngox loolu yéenekaay bi génne magistrat yi wax nañ Alioune Tine bu Africa Jom Center moom it ñëw na ci li nga xam ne moom mooy indépendance justice boobu wax la mu gis ne kon tey na xel jamono ji waaye it ki nga xam ne mooy euh, professeur Ngouda Mboup bu université Cheikh ante Diop nee na l'ère du principat euh, faisant euh, donc des présidents de l'unique source du droit est révolue moom foofu la génne ñu jàll ci li nga xam ne moom mooy Vox Populi moom mu ñëw ci ki nga xam ne moom juróom at def na ko ci CREI yi ba pare doog fa jóge moom Alioune Ndao euh, euh, moom dikkaat na ci lii nga xam voilà sept après gannaaw bu mu fa jógee ci CREI yi ba mu amee sept après lay doog a euh, génne si pataaralem gi ngir andi ay leeral ci doxalinu li nga xam ne moom mooy CREI ak nag mémise yi nga xam ne da faral di nemmeeku. moment bi jamono ji nga xam ne ñoo ngi kaas si wàllum justice moom Aliou Ndo sept après mu génne nee na nag foo kenn seexalu ko lem moom moo toog ba xam ne wax jot na mu daal di wax jëm ci Euh, li nga xam ne moom mooy euh, créé yi nee na façon bi nga xam ne noonu lañ koy euh, maanaam jéem a faxasale loolu ci boppam daf ko metti daf ko da daf daf ko metti moo tax moom mu commencé génn ci pataaram gi moom nag wax na wax na jëm ci li nga xam ne rek moom mooy wàllum CREI yi ni ñuy régler yenn dossiers yi Antoine Diome Antoine Diome mooy sunu ministre de l'intérieur moom nee na communication bi nga xam ne nee na wax ju neex sarax la ñëpp xam nañ loolu. nee na wax ju neex ci boppam la Antoine Diome manul wax ju neex ci boppam la Antoine Diome ci boppam manul te discours am communication bu muy def nee na dafa calamiteuse mooy lan ci wolof. moo nekkoon ni ci moom moo nekkoon ci moom. c'est ça waaw nee na nag dis communication bu muy def calamiteuse la baaxul. baaxul hmm. man mën na yee fitna gu nekk. loolu mën na yee fitna gu nekk. Hmm. en te wax ju neex. waaw sarax la de sarax la. si de moom moo ko moom moo ko wax. man li nga xam ne moom la ñuy reproché Ousmane Sonko. bu fekkee ñoom dañu am lu ñu ciy laayam laayamee ni kii ni ni ko Dambou di waxee. nañ ko yóbbu ci yoon ñu wut ak ñu ñu àtte ku nekk xam fi nga féete bu mu nekkee ñoom dem nañ ba nga xam ne liquide politique rek moo ci nekk wala ñuy wóor loolu ñoo gën a xam ne lii amul. nañ ko bàyyi nañ bàyyi doomu jàmbur mu dem loolu la ki nga xam ne moom la wax ki nga di euh, <laughs> c'est que du du leen jël yaasin Yacine da lay day day. non c'est-à-dire euh, nekk nii Ahmed bu fi nekkulee mën nga ko gérer ah. non mais mais mais yàgg nañ def revue des titres. non non quand même buy hmm. ma Ahmed bu ne retraite moom war ngaa mën a jël. nee na un maire peut cacher un autre. ba monsieur le maire jàpp. Ah, ah, Ahmed maire nga yow maire nga. <laughs> kon nag ceeb. baax monsieur le maire bu tënkee ci daaw da ñaaw. waaw moom nag sama euh, sama moom jox na ma maire bi ba noppi. <laughs> waaw moom jox na ma maire bi ba noppi MD lu mu wax wala ma. ren Mansour Diop ba mu ne ma Yacine quotidien bi lan la <laughs> bind. ayca ñu ñëw ci ki nga xam ne moom eh, eh, eh, mooy Aliou Ndao ba tey moom mi nga xam ne moo nekkoon moom moom mi nga xam ne nag moom moo nekkoon ci bopp moom moo nekkoon procureur de la CREI moom Aliou Ndao ñëw na ci li nga xam ne rek suñu wàllu justice nee na jamono ji justice bi ni ñu koy tamee dëmb kenn masu ko tam dëmb. justice bi li ci nemmeeku jamono ji masul am bi Sénégal nekkee Sénégal ba léegi Sénégal Léopold Sédar Senghor ba Sénégal président Macky Sall ni ñu tamee ndëmb euh, justice bi masul am loolu du samay kàddu nag kii moom moo ko xam le di Aliou ndaw nekkoon euh, procureur bu euh, CREI nee na nag jot na jot na ci li nga xam ne moom mooy suñu wàllum yoon ñi nekk ci wàllu justice bi ñoom ñi nga xam ne ñoo koy exercer ñu xippi seen i gët te xool ñu xippi seen i gët te xool état de droit buñ ko doon hmm. jëmmal ni mooy nit Mm-hmm. mën ngaa wax ne justice mooy xol ba bu justice bu xol ba nit moom bu xol ba arrêté rek daanaka. l'un ne peut pas aller justice nag noonu la mel ci état de droit mooy xolu état de droit bu xel boobu doxul rek yi du alimenter yeneen yëpp quoi. dafa kon nag justice mooy xolu état de droit. Mm-hmm. bu xol ba doxul. dara du dox. ayca ah. ñu ñëw ci li nga xam ne rek moom mooy euh, ban la ñuy dem Yacine bu ñeexee ñu jël jël le quotidien wala jël nañ ko ba noppi. jëlaguñ ko ñu jël euh, le quotidien ancien procureur spécial près de la CREI moom Aliou Ndao génn na ci pataaram gi ngir nag yëkkati kàddoom jëm ci li nga xam ne moom mooy doxalin bi ci wàllum yoon justice bu indépendante moom nee na fii ci dañ koy dégg rek waaye duñ ko du amaguñ ko loolu moom moo ko xamle jëm ci euh, li nga xam ne moom mooy discours euh, Antoine jom nee na nag bie boo mu def attention mm-hmm. lii raam ci ñag bi la jëm te nag na fexe bàyyi kàddoom ci boppam bu mu tax Euh, ñu euh, taal réew mi nee na nag ñetti at dong moo dese président Macky Sall. ñetti at moo dese si euh, président Macky Sall kon nag Antoine Diome na ci bàyyi xel bu baax. Mhm. li ci kanam raw li gët te nag fu fas dul dem xel dafay doxantu. du say kaddu. non du samay kaddu. alors Aliou moo mooy ni xamle. mais nag xam nga sëñ Mambay souvent. Mhm. ban problème lay am. xam nga yow sëñ Aliou Ndao mhm. bu ñu fàttalikoo moo doon procureur u CREI yi te CREI yi amul lu ñu ko ŋàññeewoon kon donc dafa mel ni. Euh, dafay mel ni euh, yow nga joué benn rôle A dem ba ci digg ba ñëw joué waat benn rôle B. est-ce que kon mhm. moom li muy ŋàññi nii xamoon na ko depuis ba mu fa nekkee procureur mais continuer di ko def. Mhm. donc souvent dafay am jiixi jaxal cest di que dafay am benn genre incohérence euh, incohérence c'est bien parce que yi amul lu ñu ku waxul fii ci CREI te moom moo doon procureur. Mhm. affaire kii donc tey suñu demee ba jëmmi jamono sept mu ñëwaat di ñu waxaat lu xaw a jaxasoo kii bi. na ma daan doxee voilà finalement da ngay xam ne. bon c'est que nag si boo nekkee ci biirax ah boo nekkee ci biti du benn. Ah, est-ce que léegi da wax fonction de ngi ci biir. wala ngay wax en fonction de yaa <laughs> ci biti. voilà foofu tamit day indi day indi problème. ayca l'observateur dafa ñëw ci jamono ji li nga xam ne mooy wàllum fitna gi du muy gënee màgg ci Sénégal jamono ji mënees nañu wax ne comme ni ma ko waxee sànq rek euh, comme euh, euh, cin wu taw a tàkk ñu ngi koy ëppee boor bu ne fii ci euh, euh, Sénégal yaramu màggat la foo ca laal day métti mm. kon nag lu ndaw rek mën na yee fitna ni ñu ko nemmee ko euh, jamono ji gis nga dem ni ñu ko gisee sa université Cheikh Anta Diop ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy évidence idi transhumance face à la saignée mu mel ni kon nag jamono ji parti réew mi bu doon góode bu doon góom góomu nawet la ñu ngi koy fej mu tëw wër parce que fu mu nekk nii départ yi bari na lool teg bëri na ci ay kàngam yu nga xam ne ni wan nañ gannaaw ki nga xam ne moom mooy euh, a Seck Ndaamal Kajoor kon nag bu yàggee dana wéet ci li nga xam ne moom mooy partem kon nag Yacine ñu euh, euh, wax ci ki nga xam ne mooy Sidiki Kaba jëwriñ ñu dénk wàllum l'armée bi moom la duguti gi moom ci boppam utal na benn poste de commandement fi nga xam ne moom mooy ban dëkkati la sax Mayakor le camp Mayakor Diouf am na benn poste euh, benn poste commandement bu euh, bees mhm. mën nañ jeexale euh, xanaa Jibril Waar xaritu monsieur le maire bu Guédiawaye acca waa léegi ñu ñu tëjee si Jibril Waar. waaw vite fait rek vite fait rek. Mhm. acca maître Jibril Waar dafa ñëw yëkkati ay kàddu jëmale ko ci Ousmane Sonko nee na ñu Adji Sarr nee na Adji Sarr bu ñu fàtte ne doomu jàmbur la jigéen la ni ñu ko ngawti ngawtee si diirub ñaari weer teguñu ko fenn te nag nañu bàyyi xel bu baax si dox doxalinu ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko moom maître Jibril Waar moom mooy ni xam ne nee na nag. pourquoi kon Ousmane Sonko mënul dem wuy ji ndax ki nga xam ne moom mooy euh, euh, président Abdoulaye Wade wuy mas na dem euh, wuy ji Abdou bàcc li Karim Wade Khalifa Sall ak yeneen ci ay responsable jot nañ dem ci wàllum yoon kon pourquoi pas Sonko du dem wuy ji euh, yoon du samay kàddu nag maître Djibril War mooy ni xamle euh, ci direct news en tout cas euh, kooku di député Ousmane Sonko dana seeti tey ji ki nga xamante ni moo di le président du mouvement Gëm Sa Bopp Bougane Gueye Dany sunu patron fële ca cité Kër Góor gi incha allah 11h lay doon Mame Mbaye Ndiaye sa waxtu jot na nag ñëwal nga faram fàcc xibaar gi mu daal di jàppandi ginnaaw bu ñu marqué une petite page de pub ñu daal di dellu si.